mbokk yi jaa jëf ñu ngi ak yéen ak penco euh, ñu tàmbali waxtaan wi incha allah Abdou cam euh, ñu jox kàddu gi askan am na kenn asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay ziar. El Hadj Seydou Nourou. ñu ngi waa Sénégal yëpp. alhamdulilah. Euh, ma tey nag li ma bëgg tomb yi ma bëgg a indi. waaw bu ci jiitu. Mhm. mooy jullit ñëpp tey ci Sénégal. Mhm. ñi ngi leen di ñaan nañu bàyyi manifestation aljuma aljuma nañ ko bàyyee yàlla hmm. oustaz yëpp maa ngi leen di woo ñu def ci débat lool ñu ñaan réew mi politiciens yëpp pouvoir ak lu dul pouvoir nañ bàyyi maanaam hmm. manifestation aljuma bés bu sacré la hmm. waaw loolu baaxut bu loolu weesoo nga baal ma rek du xasuma kenn de déedéet mais force nag ma tudd tur mooy. Barthélémy Dias déedéet déedéet loolu laay bañ loolu laay bañ loolu laay bañ loolu laay bañ. loolu laay bañ waaw damaa bañ. par exemple li mu wax ci alquran waaw waxal rek. bu mu ko waxati bu mu ko waxati. Mhm. alquranul karim day faj ci biir day faj ci bitti. Mhm. moo gën a efficacité lépp loo xamante ne gis na ko. Mhm. ci si qudsiyaat la bokk. beneen bi ci def suñu kilifa diine yi. nañuy fexe di waxtaan ak politiciens yëpp. al alquran moom euh, kenn mënu koo ŋaññ. naam sax boo ci àndul waroo koo ŋaññ. boo ci mënul wax lu baax mu na ngeen noppi rek. waaw. Mhm. léegi léegi an suñu kilifa diine yi. Mhm. ñu jàngal suñu politiciens yi ñëpp masalan jóg taxaw. Mhm. lii tam dafa am koo xam ne dafa wax ne lislaam ak occidentaux moo tardel jigéen. loolu xamut lan mooy l'islam. l'islam fi mu fekk fi mu fekk masalan l'islam nu mu tuddati. jigéen. ak fi mu ko yóbbu. Mm-hmm. def ko buur bu ñu yilif lépp lu ma ne foo gis ñuy toroxal jigéen lislaam amu fa. ñàkk xam rek foo gis ñuy toroxal mag yaruñu fa xale. ñàkk xam tereewuñu fa borom xam-xam. yë yërëmuñ fa miskin. ñàkk xam lislaam amu fa. ñàkk xam rek ñàkk xam diine moom fu ma ko gis. waaw léegi léegi nag bu loolu amee. Mm-hmm. moo lay wan ne dañoo war a améliorer daara yi. Mm-hmm. buur gi na gëstu daara yi Mariam Faye Sall. na dem ci daara yi moom daara yelwaan la Serigne Aliou Serigne Aliou nu mu tuddati lu moo ko doon jàngal ca njaareem. daara yelwaan nañ dem ca àll ba bu ñu bëggee ndam yal na yàlla def jàmm ci réew mi nag amin jërëjëf jërëjëf min calmini fuutankooɓe jërëjëf Mouhamad Lamine jërëjëf Mouhamad Lamine foofen jërëjëf yàlla wa amin merci euh, mu ngook Abdou Thiam euh, diine moom ku koy dinga mi moom da nga koo xamul moo tax tamit bala nga ci wax fu nga gëstu xam bu baax a baax lu mu wundu asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ñu la ziar El Hadj Seydou Nourou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sama xarit bi El Hadj Assane Gueye ak Ablaye Diop ak Abdou Thiam bi nekk bi jërëjëf Ah, ma ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. Ah, affaire mbay mi laay waxtaanee tey. Mhm. actuellement fu ñu toll nii laa la wax mbay mi au niveau du monde rural. Mhm. Ah, mu ngi dem li mu war a demee. parce que état bi li mu war a def laal actuellement mun naa la wax ci côté semence à toute couche confondue côté semence actuellement mën naa mun naa la quatre pour cent yëpp nekk na sur place. li dem ci ci ci meññeef bi ci engrais bi. ak 35 à 40% pour cent actuellement nekk na sur place. Mm-hmm. nawet bi nag eh, mu ngi door a tàmbali. defe naa fii ak le 15 juillet lépp loo xam ne état bi yelloo ak baykat yi dina nekk sur place. Mm-hmm. actuellement le ministre de l' agriculture. loolu leer na la ay leer leer na la yow. loolu moom information yi ma am si au niveau des DRD kii des régions. yow ah Omar Sow. au niveau des DRT région man maa wax rajo ko. waxee mais est-ce war a wax officiellement tamit. non non man en tant que Sénégal di jàppale état bi su ma information boo xam état bi kiw ko. man ko wax waaw mais da xaar ba état joxe ko officiellement d'abord dégg nga. loolu tamit moo gën waaw du keesu ay waaw man la su ma gisee lu baax dama ko su ma gisee lu bon dama koy wax loolu kenn weddu ko lii affaire mbay mu ngi def lu mu ci mën laalaw def na ci nag mu ngi def laalaw des na nag mais mu ngi def loolu moo tax mu nekk fii président la moo tax mu nekk fii laa jàppale béykat maa ngi la gërëm di la a jàmm jërëjëf Abdou Diam jël keneen bu dee am na kenn ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum waaw ñu la waaw ah, Seydou Nourou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar yaay bu wér waa Touba. Ah, di nuyu ñëpp a ngi fi. jërëjëf di nuyu waa rajo bi yëpp. jërëjëf. ah Seydou Nourou man de ci fi may njëkkee tey. Mhm. mooy problème bi am Touba. Mhm. muy diggante Safitou Amane. Mhm. ak ak waa mairie bi. problème bi lu ma bettu ma. ndax Seydou Nourou civil du jubbanti moroomam. civil. mënut a jubbanti moroomam. comportement. surtout amaan mm. xamoon naa ne bis dana mës a ñëw coow li topp leen parce que ñi ni ñi ñi nit ñooy nit ñoo xam ne ñii amuñu benn éducation man ñii mm. lan njëkk a joteel mm. man njëkk nanoo joteeg man te sama restaurant ba te sama waa kër te man nu injustice dama koy bañ ala kulli alin gendarmerie ngi fi police ngi fi nga dem ci lu toll ne maire yi maire ba ne fa nit bu la tooñee da dem te kilifaam avertir mm-hmm. beneen bi ci des maa ngi ñaan kilifa diine yi ay jànkate alxuraan jot na nawet bi nan wala ñoo wax ay nang ñaan yàlla mu taw Mm-hmm. ñu wàccee kaamir wax jàmm ci réew mi yéen a jàmm ci réew mi mu taw ndax ba mu waree taw yàgg na Seydou Nooru te bu mm. xiinee ba nga ne tey dana sotti doo doo gis benn toq ndox Seydou Nooru loolu mooy wax bi nanu ñaan mm-hmm. bi ci des waa yeewi askan yi nanu taxawu Cheikh Abdou Bara Dolly mii nag mm-hmm. ndax ñoom ñoom a ànd bokk coalition mu nekk ci ay tolof tolof nekk ca kaso bee te dégguma benn yoon ku nu wax ci ñoom ne seeti na ko wala taxaw na ci kon naa ngi ñaan président Macky Sall mu rus baayam Cheikh Bara Dolly mi nga ne moom moo ma nekkoon PDS te témoin ko bu baax hmm. mu baal ko jéggal ko ndax njiit day jéggale tey hmm. jëlelu hmm. loolu laa amoon lu may jàllale ba pour maa ngi lay nuyu di la yóbbante nuyu ci Alaaji Assane Gueye ma kumba sama taaw bu góor bi incha allah <laughs> nekkal ci jàmm jërëjëf incha allah jërëjëf weel waxtaan wi Abdou Thiam bu dee am na keneen asalaamaaleykum <coughs> aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziar Mbay Mbàkke Bawol ana waa Mbàkke si jàmm ah sama yaay génn mu dugg. waaw noonu la. <laughs> ñu ngi koy ndokkeel xam nga moom sama yaay moom moom dëkk bi réew bi rek ko ñor. ndeysaan. yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin amiin. Ah, ah fi mu daanee ne daanaka dama ciy sànni ñaari cadre rek comme ci loolu safitu euh, amaan. Mm-hmm. xam nga dëkk booy liggéeyal euh, ak borom dëkk ba. Mm-hmm. ba ab sëtam ñëw di wax a yow war nga amug ràññee parce que ñoom doon ay gan fi lañ dëkk. Mm-hmm. mais surtout sëñ Abdoulaye Mbacke. ku ne xam na ne moom sëñ Abdoulaye Mbacke Touba daanaka moo ko redressé. te hmm. ñun ñi nga xam ne dañoo jamonoon tey moom hmm. ndax ba bëri na jafe-jafe fi amoon yu bëri ci ay ñaawtee fag lu mën a doon sëñ Abdoulaye ko fi jëlee hmm. kon soo ñëwee di kilifa di wax ak yow wax ngaa am comportement toll ne déglu ko wax ak moom mais lii ñu def moom kenn rafetlu ko ay li may wax jigéen góor du ko dugal ci bureau di ko sumbi loolu même bu dee si soxna sax ko du bëccëg bu dara kam mu rafetul motumaa koo xam ne xamoo ko xamul kon kooku damay ñaan kilifa yi ñu wax ñoom ñu li wër jumaa ji hmm. ñu di ko saytu li nga xam ne bi diggante dëkk bi ne population Touba léegi dafa màgg hmm. nekkatul comme Touba bu njëkk Touba mille neuf cent quatre-vingt ñu dëkk Touba ñëpp xamante ne hmm. mais léegi Touba mën ngaa dëkk ci quartier doo xam ku fa dëkk dëkk am réew la ay di la jóge seen dëkk dafa mag dafa màgg dafa màgg léegi kon loolu moom ñu ngi ci kii lii mu wax ci euh, Cheikh Abdou Bara Dolly nag nit ki moom bu tooñee ba nga xam ne def na loo xam ne sanctionné nga ko muy kilifa yi da koy jéggal ngir jëmmi suñu borom bi parce que wax ji moom toujours dëkkul fa mu jëm fa mu hmm. jigéen rek la ca hmm. ko di gërëm réew mi di leen ñaanal baax di ñaanal monsieur maire Abdoulaye Ka ci taxawaay di ko ndokkeel di ñaanal Cheikh euh, Baara Gueye ca Daaru Nahim di ko ndokkeel baax di wax Sam Yabal ak Tindo di seen tëli hmm. nañu dimbali waaye jàpp leen ñu defar leen ko sapeur pompier bee kii bi nag sëñ may sekk mi demoon démb Dakar wax na ko ñu ngi koy ndokkeel baax yàlla na ko président dégg te defal ñu ko Mbàcke moom soxla nañ sapeur pompier ak poste gendarmerie ak dispensaire ko police bu baax jërëjëf tey dóor nekk si jàmm jërëjëf di nuyu waa Mbàkke yëpp incha allah Abdou Thiam am na ki naan salaamaaleykum waaleykum salaam Seydou Nour ya, maa ngi lay nuyu maa ngi lay dellu nuyu baax a baax mbaa yaa ngi si jàmm alhamdulilah alhamdulilah kooku suñu kàddu man de maa ngi tudd Mor Sarr mhm. suñu kàddu yi nag ñu ngi ñaan monsieur le ministre Serigne Mbacke Ndiaye mu jottali ñu ko président de la république fekk mu koy dégg fan ngay wootee mbuur lay woote mbuur bismillah ñu ngi si jàmm defuñ dara mhm. sëñ sëñ Nooru dañuy dégg Sénégal ñu ne ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon. Hmm. xanaa kon lépp Sénégal Sénégal yëpp ñoo ci wara a yem. Hmm. ñun dañ de def dañu dund injustice boo xamante ni kuñ ko wax da nga ne amul ci réew mi. Hmm. ñun bokk nañ ci ñi njëkk ñi njëkk jël ñu jàngal ci case tout petit bi ñu koy sos bees. Awa Guèye Kébé nekkoon ministre de la femme et de la famille. Ndeye Khady Diop nekkoon ñu joxoon ko mu jiite petite enfance. président Macky Sall mu ñëwee ci li xelam mu rafet mu ne ñi nekkoon ci Kaffrine def leen plan de hmm. xam nga wax ju rafet xutul lii hmm. boo xam ne ñu beddi ko arabisant yi ci nekkoon beddi boo xam ne mosul am ci histoire Sénégal hmm. depuis booba ñu ngi leen di jël dégg na suñu dese daaw mu ne jël nañ six cent animateurs benn yu nekkoon ci kaas mosul am arabisant bu ci bokk donte la yow yaa arabisant yi moom yàgg naa ko wax fii arabisant yi kañ jox leen cër wax dëgg yàlla donte la yow yow fi nekk tey yow yaa ko yaa ko boo ko jiitoo loo ko jiitu jiitu ci métier bi ñun deux mille vingt trois bi ci la ñuy vingt ans ci classe yi am na ci ñun ñoo xam ne deux mille vingt trois ci la ñuy def vingt ans ci classe mhm. ko am na loo xam ne am na loo xam ne boo ko tubaab yi xeexee mhm. bi ñu dénk ko directrice des cadres bi ñu dénk xam na mhm. suñu métti ci mbir mi tey li gën a yées Sénégal président bi mu waxee ne nañ jël ñi ci nekkoon. Mhm. ñun xale yi ñu doon jàngal nga xam ne 2000 lañ juddoo xam nga kon préscolaire ñu ngi recruter xale boo xam ne 3 ans. Mhm. xam nga xale bi juddu 2000 yow boo commencé 2003 yow moom ngay dooree. Mhm. tey xale yooyu lañ dem jël jël dugal leen ci liste yi ñun ñu fi nekkoon di jàngale ñi bedd ñi. loolu daal waaw. au lieu que au lieu que xale yooyu ñu dem jàllale ñu jaar concours élève maître. Mm. mais dañ leen dugal jël dugal leen ci biir liste yi. kaddu gi kaddu gi jàll na xam naa ne kaddu gi jàll na. daa am ñuy xaar lii nii bëgg nañu mu jëmmale ñu président de la République mu jot. jërëjëf jërëjëf kaddu gi jàll na mu ngoog euh, Abdou Thiam bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi allo asalaamaaleykum Seydou Nourou Jawwali bismillah bismillah afini fini jam tan machallah juma mubarak macha jukran shukran jazilan legi ma ñew teunk hmm. baña yag ci line bi ci hmm. mbiru tabaski hmm. euh ministre élevage wala président Macky Sall bokk dafa suspensionné ripas bi doon jar ay 12000 mil, dañ ko suspensionné ñi nga xamanteni nak dañuy yëngu ci mbiru jur la wax nag cinq mille lañ koy jaayee mais dafa am ben manam gap moo xamanteni ni ko xam nga man ci ci mbiru xar lay yëngu pour wané ni ñun suñu bopp ñoo mettil adduna bi mais yàlla mettilu ko seen hmm. nuur da ngay gis ku jël ngooñ hmm. ngooñ de jënd ko baase ko hmm. di xaar bu cooroor bi nii ñu rey sénégalais yi te ñu ko def ay borom barke lañ moo tax mënaan lañ coow lu dina gën a bari kanam la jëm parce que ñun dañoo war a dimbale di suñu biir depuis ma juru ba léegi nag maa ngi dégg ñu naan xaru du am xaru am sénégalais boo xamante ne nii loolu phénomène la rek waaw damay faral di wax ne ku wax feeñ nag dañu war a kenn ku nekk soo yoree sa as am fu foo ko denc nga jënd denc. Mhm. kenn mënu la wax xar dina am. Mhm. wala day ñàkk tànk bu ñu nee suba la chaque année ñu wax ko sax de waaye day am. waaw loolu looloo tax ma ne phénomène la rek. bu ñuy mhm. wax depuis ñu judd rek président dafay jógee ñuy wax xar du am chaque année. dama bëgg ñun suñu biir. ñu jàppalante suñu biir. Seydou nuuru bu jëndee xaru mille ak mbay laay bi jënd xaru cinquante mille ñoo yem yool defe naa ñoo yem mm, yool ñoom yool de mm-hmm. loolu laa bëgg yi xam ko ñu jàppalante suñu biir àddina bi méttiwul ñun mm. ñoo ko méttil mm-hmm. bu ñëwee ñu yokk paas yi ñu yokk soble yi ñu état état booy jaay moom am nga droit am bénéfice waaye ne trois fois nga am bénéfice ma dafa ëpp dunduñu loolu de Seydou Nourou. Ndiar doon na waar jox nag nuyoo sa benn mbokk bu lay suivre ne mun wax sa rajo euh, Ali Diallo mi ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. maa ngi koy ziar bu baax. di kontaanee Sénégal yëpp di wax ne lu dul jàmm jàmm ko fi gën. dëgg la di ñaanal loolu moom <laughs> xamoon naa di ko jeexee wax dëgg yàlla boo <laughs> nga jeexee ko am na keneen asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar. waaw Nourou maa ngi lay ziar. waaw kooku Souleymane Dieng Sare Lamu. Sare Lamu, nu waa Saare Lamou. ñu ngi si jàmm alhamdulilah. alhamdulilah bisimilah. macha allah lay siyaar bax. baax. jërëjëf. Man man ma fi woote won nak di joytu ambulance ak euh, yoon bo xamni pour ñu bitime bitimeel ñu ko. Mhm. Euh, digënté Richard Toll ba ba ba ba Sare Lamu. Lamou. Ah, waaw waaw wax nga dëgg ma ngi fàttaliku wax nga dëgg. Mhm. waaw inshallah allah. Mhm. waaw yi ñu ci non dox yëpp ñu euh, macha kilifa yi dégg nañu té woote nañu ñu nañu. te macha allah ñu ngi si interpellé woon ñëpp tamit woon nañu ñu. macha allah di gërëm rek euh, ki nga xam ni interpellé woon nañ ko muy Serigne muy Serigne Mbacke Ndiaye yàlla na yàlla yàggal taxawaayam. te genre bu yi la soxla ci moom te nii li ñu li yaakaar ci moom tamit euh, gis nañ ko. Mm. donc yàlla na yàlla yàggal taxawaayam si barke Seydina Mohamed. Mm. di la gërëm yow tamit El nuru jërëjëf di ñaan yàlla rek yàlla mottali projet bi incha allah. incha allah jërëjëf yàlla baax na. jërëjëf merci di nuyu waa Saare Lamo yëpp incha allah. bu dee am na keneen ku nekk ci ligne bi salaam waaleykum salaam. ah El Hadj Seydou. waaw. arma jëng maa ngi lay. Arma maa ngi lay ziar waa Touba. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah bisimilah. maa ngi lay ziar bu baax di la ñaan jàmm. jërëjëf jërëjëf ñu bokk lépp ñu bokk lépp incha allah. am nuyoo waa Saalum nag vraiment ñu ngi lay dugg ci rajo bu ñu wax FM. ma la bu baax. FM ma nga nekk fële ci Saalum wax dëgg yàlla ñoom ñëpp daanaka foofu synchroniser ak RFM di ci dégloo xibaar toujours. am na solo. waaw loolu vraiment lu am solo la. ñu ngi lay ziare baax. jërëjëf Adama bisimilah. tey du man nag Kajoor dëkk bu sell bi Touba damaa yitte lool waa ci. ma dox saa bu ñëwee rek sama xel ci dem. tey nag may dem ba ngaay vraiment di wax ni artisan yi nga xamante ne ñoo nekk foofu. ñu ngi may interpellé di ma yóbbante ci seen ministre tutelle vraiment gën leen jàppale ci formation yi. Hmm. ak ci financement yi. ndax jàpp naa ne kenn ku ne xam ne secteur artisanal bi Seydou Nourou dafay def liggéey bu hmm. euh, naa ne tey jii secteur artisanal bu ñu ko doolee lool. Hmm. lu bëree a jege. ñi nga xamante ni mooy waa Ngaañ. surtout maa ci seen village artisanal bi ñu jàppale ci formation ak financement yi. bu ko defee seen taxawaay gën a mën a a gën a yokk seen emploi wax dëgg yàlla ñu ngi ma ciy soññ bu baax di ma yóbbante ci président la république seen xarit ndax jàpp naa ne artisan bi Seydou Nour mën na lu bari bari man maa ngi ñaan fa assemblée nationale bii di ñëw. Hmm. ñu programme benn loi boo xamante ni dafay dafay dafay dafay dafay dafay jàppale artisan yi. Hmm. ñu fexe ba mboolem loo xamante ni euh, fonction publique euh, képp koo xamante ni yaa ngi biir fonction publique. Hmm. mu am loi boo xamante ni lépp loo xamante ni dañ koy soxla muy ay daal nag wala lu mel ne ay tur ci njaareem ak yu mel noonu. kenn dootu am droit jënd ko bitim réew lépp rek ci biir réew mi lañ koy jënd. su boobaa dina favoriser ñi nga xamante ni artisan yi bu ko defee. jërëjëf mën cee gis seen bopp bu baax a baax jërëjëf bu loolu jàllee rek ci nga baal ma rek trente hmm. secondes ma daaneel fii ci wala kaw tuuti waaw waaw day gaaw rek hmm. ndax bëkk démb la ministre Serigne yi nga xamante ni travaux dafay nekk am benn programme boo xam dafa soxal waa dëkk bi yëpp muy nappe phréatique bi nga xamante moo wër jumaa ji ndox moo xamante dafay ball di sonal nit ñi état hmm. Sénégal nag dafa génne vingt quatre milliards pour parce que dina jële ci dëkk ak mbokk sites yi nga yëpp loolu jërëjëf jërëjëf di nuyu waa Touba yëpp Abdou Thiam ñu woyal am na kenn ñu jël ko salaamaaleykum oui allo waaw alaaji Seydou Nourou ziar maa ngi ziar bu wér man delloo ziar bu wér maam ah, <laughs> mat naa ko est que mat naa ko <laughs> mat nga ko tur wi nee naa lu tur imam <laughs> dafa diis de Serigne ziar bu baax man la tur wi rek doy na parce que tur day wuy borom te wax nañu kuñ la tudd nga jël ci moom juróom-ñaari jikko waaw kon yàlla baax na yàlla jël dara amit yàlla buru bu baax la maa ngi gërëm suñu mbokk moomu doonu génn léegi doon wooye booru fële ci booru Saint-Louis effectivement ah li ñu ci jéem li ñu man te it may remercier vraiment autorités yi nga xam ñoo nekk euh, euh, ci programme bi yore loolu hmm. muy Puma ndax bañ ko déggee jóg nañ ci taxaw ci yàlla na ko yàlla sottal hmm. mais mooy hmm. Euh, xale yi mbëj yi ñuy wax mbëkk mi hmm. ndax li tax ma di ci woote mooy hmm. ñun ñi nekk ci wàllu politique bi hmm. dañu am responsabilité bu rëy rëy rëy ci loolu li tax ñu am ci responsabilité mooy néew na wala boog musul am nga dégg kenn ku nekk ci wàllu politique bi jóg ñaawlu loolu mais waxuma sax ñaawlu bi mais jiñtal xale yi wax leen yan possibilité lañu am ci biir réew mi mhm. te xam nga perception maanaam li nit ki gëm mhm. dafa ëpp solo dëgg gi am mhm. euh, dégg naa ci seen antenne bari ki démb le ministre Dame Diop di wax ne ci xëyu ndaw yi créé nañ soixante quatre mille emplois loolu dafa jaadu ñu yëngu ci wàllu politique def ci gëstu mu wér mbaamu mu bañ wér. Hmm. ñu yee xale yi xamal leen ni leen lii ngeen di dépense dem bitim réew kat. Hmm. bu ngeen teega ci réew mi mën ngeen am lii ak lii. Hmm. parce que ñii dem bitim réew. xam nga demuñu gratuitement dañuy fay. koo ci laaj dina fay naa trois cent mille. ñii ni fay naa quatre cent mille ñii ni fay naa un million. am na ci koo nga xam boutique bi mu la dem jaay ko. dem ci ma malheureusement fa la des. fa la des am na ku jaay fasam ak sareetam dem fa la des. donc dama bëggoon. quel que soit nag lu suñuy position ànd ak nguur ak bañ a ànd ak nguur amul solo. Hmm. ànd ak askan wi moo am solo. am na solo hmm. ñu mën a gëstu ne ndaw ñi a ah, attention. Hmm. fii ak fii kat su ngeen fa jaaree. yàlla mën na def ngeen am dara. jërëjëf mais bu ñu bëggee gëmloo ndaw ñu ngi liggéey amul dara. amul dara amul dara amul jërëjëf musiba lay jël maa ngi déglu bu baax. jërëjëf merci beaucoup euh, sëñ Mbacke Ndiaye euh, ci yooyu lay kàddu jërëjëf euh, ñu marqué pause bu ndaw rek laata ñu delloon incha allah. takaful di guichet Ben bi yëngu ci anam yi ko l'islam bëggé ci gungé ujaaj ci walu assurance bu halal ci kaw ajmak 2022 bi sen takaful bu sen assurance bi di len assurance bu halal ci misal remboursé di delloo ci seeni frais ajmak bu féké borom bi dafa ñëw ak dogalam ngeen am covid 19 ta dem gi remboursé ba ñeenti millions wala it borom bi ñëw ak dogalam mardi ims ak patu am wala tëlee remboursé gi ba benn million sen takaful bu sen assurance bi moy assureur Ben. bi leen di gungé ci walu tourisme Dîner Mohamed xam Magal magal ou aj umra ngir bép léral dem len ci ñom assurance vie ci Mermoz Pyrotechnique ci Dakar, lo 1 Jano ak siège PDS ci VDN bi téléphone 33 824 26 88 wala 76 644 15 82 wala 76 644 15 87 une assurance vie assureur bi ñew ak njariñ seen takkaful bu seen assurance vie tegu ci lu xalal moo leen ni may seen émission penco. donc ñu wéyal Abdou Thiam ñu wéyal waxtaan mi jeexagul des nañu fukki simili ak juróom mu néew néew. oui allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. Mbodj Aji Seydou Nourou ana waa Tëngéej. waa tëgee jën fii di la nuyu di la bu baax jërëjëf bisimilah maa ngi lay ziar nag ci ajuma bu màgg bi ak fukki fan yu ak fukki fan yu njëkk yi ci weer bu zul xijja bi jërëjëf yàlla dëxante ay mbir yu bare bare bare bare bare bëri hmm, nañ si profité ñaan bu ko defee yàlla wàccee taw bi ci jàmm ak salaam amin waaw ci bàkke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax fukki fan yàlla dafay gën ci alxuraan wala faji wala yaa yaas bi hmm. yow jàng ko yow uh, Seydou Nour ba xam nga baax li may wax jàng tuuti rek kon nañ ciy profité rek pour hmm. ñaan ci deuxièmement li may mooy ci war xar yi état dafa subventionné ripaas bi. Mhm. ak dundu xar yi du bool bu ko état defee. Mhm. pour population bi mën a am xar. Mhm. lu waaye am mën a am xar. kon état bu subventionné kii bi nay yóbbu ay nit ci dara yi ñuy contrôler prix yi. parce que boo subventionné bàyyi noonu jaaykat yi teefanka yi dañuy jaay lu leen neex. population bi liñ ci war a jot liñ ci a jot du ci jot. kon na ci état topp ko bu baax a baax a baax a baax a baax. du yomb nag du yomb nag parce que moom buñ fekkee ñu ngi ci biir koñ yi ñu ngi fu ne. problème ñu ngi fu ne ñu ngi fu ne loolay problème bi parce hmm. bu defee loolu population mën xar mais léeg ñu ñëw la xar si jaan xar boo xam ne day lenn xar bi moom warul dépassé cent cinquante ñu ne la trois cent maa la ko wax hmm. kon état bu bu defee loolu man ñaan rek mu topp affaire bu baax a baax a baax hmm. et puis weeru weeru solidarité képp ku mën a dimbali nit te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax moo jox moo jox ci réew mi dimbali nit ñi te yàlla tax yàlla ne war tax al bir war taxawaa da leen dimbalante ci mbaax dëgg la hmm. te bés yi nii bésu dimbalante la lu ci waaye dimbali nit ëllëg ëllëg yàlla dala koy fay fii fay la ko fële kon nañuy solidarité bu baax ndax jullit amul lu solidarité loolu daal laay ñaan yàlla loolu laay ñaan sénégalais ñuy def ko rek képp ku mën a dimbali nit nga dimbali ko te yàlla rek tax ndax dëkk bi métti na trop seen nuur ba jërëjëf jërëjëf dëkk bi tar na dala jot nuyu waate ngi yëpp jërëjëf ak na ko sàmbay mu ngi nuyu bu baax a baax. maa leen di ziar bu baax a baax jërëjëf moo fàtte si ñaan nag incha allah ñaalante nag ñaalante rek incha allah jërëjëf ku la amin wa antu bi xeer yi wa shukran shukran jazilan wa iyaak alhamdulilah jërëjëf macha allah euh, abdou ñu jël keneen asalaamaaleykum allo waaw bismillah salaamaaleykum allo Fall allo oui maa ngi dégg bu baax Seydou Nourou waaw ziar naa maa ngi delloo ziar bu baax Mountakha Diop Mountakha Diop maa ngi ziar nag yitte. ma lay bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. jërëjëf euh, di wax rek maanaam am na ku génn léegi di wax. Euh, hmm. euh, ni wax na nangam ci ay nit lañ cere ci emploi. am na ku génn wax ko léegi. waaw Serigne Mbacke Ndiaye moo loolu nag moom c'est vérifié. Hmm. c'est vérifié abul bokk. Hmm. waaw. nga ne c'est vérifié loolu moom. ah xam naa doy na waar ndax. Ah, c'est c'est à vérifier quoi maanaam dañ ko war a xoolaat. loolu laa bëgg wax c'est à vérifier. dañ ko lu luñ war a saytu la daal. Hmm. ndax euh, réew mi boo xoolee ni mu méttee nii. Hmm. gaal ga suux ci Kafountine ña fa doon dem foog naa liggéey lañ doon wuti. Hmm. Euh, xew ci ci côté Maroc bi ña fa doon dem dañ doon wuti liggéey. waaw ci boobu jamono nag ay ay ay ay milliards. ki jiite réew mi mi ngi koy def ci yoo xam ne daal doy na waar. xam nga li mu def ci corniche bi noonu dix huit milliards. dix huit milliards loolu mu def ci corniche. Ah, ah, am na fu mu xajoon de. ah nañu waxante dëgg rek dix huit milliards. xoolal lim de lim def lim taax bi mi tabax RTS 32 milliards foog na. Hmm. loolu tam am na fu mu xajoon. xoolal stade yi nga xam ne waxuma defaraat da koy da koy defaraat da koy defaraat lu mel ne stade du. Hmm. Léopold Senghor ak bu Diourbel yeeg yu ñu demee. Hmm. yooyu ay milliards yu jeex la ci def. loolu dañ ko war di wax beneen bi ci topp nag Seydou Nourou. mooy sa mbokk yi presse bi man damaa bëgg presse. man ku bëgg presse laa waaye presse bi moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla. war nañoo jekkalaat toogaay bi. ndax dafa am yoo xam ne moo gën a nekk priorité ñu di ci wax. Mhm. xoolal tey yéen gars yi li ñu xëyee tey. Mhm. li gën a fës ci bopp yéen gars yi. Mhm. ay casserole ay casserole yu dul jeex mm, ci boobu jamono nit ñaa ngi bëgg a ci boobu jamono nit ñaa ngi sonn nag xiif bu dul jeex ak. métti yaa ngi bëgg a dee kenn dimbaliwu leen loolu. ay débat yu technique yoo xam ne presse da cee war di wax daan na ci wax te waxatu ci. xamul lu ko waral nag. xamul lu ko waral Mm-hmm. scandale yi am ci réew mi presse bi da cee war di dut mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mountaga ñàkkul liñ bee dagg ñu jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Seydou Nour. waaw. ñu ngi lay ziar. alhamdulilah delloo ziar bu baax. Euh, Diop RFM la Medina. ah waa Medina nga fi jàmm. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. bisimilah. di la ziar bu baax ci àjjuma ji. jërëjëf waay. Euh, di ziare sëñ moom génn léegi. Mm-hmm. di rafetlu taxawaayam ci ci dëkk bi maanaam moom politique sa yëpp bu meloon ni moom moom. Hmm. Euh, ba ba dina baax parce que moom dafa jege jege na askan bi. Hmm. nekkul politique sa boo xam ne dafa sori dafa sori dafa sori askan bi. Hmm. waaw même même même bu leen defalul dara sax mu ngi leen mu leen di jege di di di di di. ñu ñu koy di wax seen soxla di wax seen di wax seen soxla waaw comme ñu ko waajee waxe woon. Euh, beneen bi mooy ci wàllu tabaski bi comme am na ku génn léegi ci dëkk yoo fi li wax noonu. maam nit ñi nañuy dimbale dimbalante di jàppalante. Hmm. dem maa koy wax alaaji alaaji asan hmm. mënoo dëkk ak nit jënd ko xaru cinq cent mille wala quatre cent mille. Hmm. mel ni mel lu ko lu koy jaay lu ko koy wan di ko jaay doole. Euh, te te nga xam ne mënoon nga ciy jënd ñaari xar nga dimbale ko dimbale ko ci. te loolu mooy ëpp mooy ëpp mooy ëpp moo ëpp yool foofu waaw mooy ëpp mooy ëpp yool euh, kon nag nan nan nan gën a jàppalewaat jàppalewaat jàppale leen jàppale dimbale dimbalante xam na laa ko mën a waxee. jàppalante dimbalante incha allah. jàppalante am na solo am na solo. jàppalante na na na ci gën a góorgóorlu daal. incha allah. waaw bu la gouvernement bi dimbalu teg yëpp rek yow loo am rek nga dimbale ci sa jullit. am na solo de mopp yool de. te yàlla te yàlla. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf sëñ bi di nuyu waa dëkk bi yëpp bu dee am na keneen am na ci jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Seydou Nour na nga def. maa ngi lay ziar bu baax sëñ bi. ñu ngi liggéey bi. jërëjëf kooku fay wootee moo de man de Mbour laa ne mais Saalum laa dëkk. ci mbiru ah. mbéy mi laa bëgg tuuti rek. waaw am na solo bisimilah bisimilah. waaw bisimilah. Hmm. maa ngi wax sow moomu di wax ci jiwu ñu ngi Saalum. Hmm. boo waree bay cinq cent kilos ñu jox la cinq kilos kooku du du du ndimbal. dëgg yàlla ci béykat. Hmm. mais ñun soxlawuñu sax léegi ndimbalu. jiwul nañ soxla engrais la ñu soxla. Hmm. engrais say luur. Hmm. soo amee engrais boo béyee dugub mu baax boo béyee mboq mu baax. Hmm. boo béyee ñebe mu boo ñebe mu baax kilo muy mille deux cent ñebe. mboq muy quatre cent et quelque. dugub suuna mu ngi ay trois cent et quelque nañu dimbale si ñun engrais. ñun soxlawuñu sax jiw. loolu may wax jiw bi tur la rek. nga politique. nañu Macky Sall dimbale ci ñun saalum saalum yi béy la ñu xam am nañ suuf. am nañ àll bu yaatu nañu dimbale ci mbéy. ak càmm bi. bu ñu hmm. ko dimbalee woon rek réew mi développé. ñoom de wallaay. Hmm. problème yu bëri yëpp dégg ci àdduna bi yëpp. Hmm. ñàkk mbéy mi la rek. dëgg suñu amoon lu ñu dund suñu kii yëpp mu mu jaar yoon. wallahi ñu ngi koy ñaan mu dimbali ci ci engrais. engrais daal la ñu gën a soxla ñun. ñu ngi soxla. waaw ñu ngi soxla. am na ñu jàppale ci engrais bi. ñu ngi koy ñaan mu jàppale ci ci ci jiwu. waaw dimbale ci engrais bi. loolu daal mooy seen feebar yéen waaw loolu ñun am nañ suuf am nañ lépp. Hmm. nañu dimbale ngir yàlla. nañ dimbale yi. président politique bi. waaw wax dëgg yàlla politique bi moom moo lembee moo lembee réew mi. réew mi métti na réew moo hmm. am na solo am na solo. sant di gërëm jërëjëf yëpp nag bàyyiwuñu kenn euh, président kon kaddu gàngoog nee na ñu jiw lañ soxla waaw na engrais bi ñëw moom lañu gën a soxla am na keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. waaw Seydou Nour maa ngi lay lu bari. jërëjëf waay. nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Medor. man la ziar bisimilah. juma mubarak. shukran shukran jërëjëf. waaw di jaaree kër gi yëpp dalee ci kaw Youssou Ndour ba ci suuf ñëpp daal. jërëjëf. waaw xam Sénégal bi ñëpp ñoo ko bokk. Hmm. kenn ku nekk war na ñaan jàmm dox jàmm xool li nga xam ne mooy avancé kenn ku ne mën a bay waaram. Hmm. su ko defee rek lépp luy jëriñ Sénégalais yi ñëpp jàpp ci. Hmm. waaye ay xiiroo ak ngaayoo amul njëriñ. Mm-hmm. dama ne ndaw yi na nañ fokk ñu am programme soobu dem ci liggéey bi. Mm-hmm. xool lu nga xam ne mooy seen avenir. Mm-hmm. mais wàcc ci mbedd mi xiroo ku ŋaayoo loolu du seen avenir loolu du doxal loolu jàmm. rawatina ku bis àjjuma ni mu sellee. vraiment nit ñi jàmm yàlla sol yëru sell yu yiw di def lu baax ci semaine bi loo gis dafa am imam àjjuma mooy imaamu bés yi. àjjuma dafa nekk bés bu nga xam ne si la yàlla wàccee sunu mam aadama ci kaw suuf. mu nekk bés bu nga xamante ne bés bu yàlla màggal la. Mhm. parce que nañ ne am nañu ne sax boo julee ci ajjuma bi ba ajjuma bi dellu si. Mhm. ay tuyaaba kese la daal. Mhm. ba tax na nañu fonk suñu bopp fonk li nga xamante ni bi li indi li ñu bàyyi jëkk muy jaamu yàlla. jaamu yàlla liggéey ci la bokk. mais dañu moytu ndiku yenn yi xam nga boo ne euh, président de la république fi teg mooy kat carte moo ko fi teg carte ko képp ku fi toog carte moo la fi teg mhm. ba tax na nañu respecté institution respecté république respecté li nga xamante ni mooy askan kenn bañ gàddu kenn àq mhm. mais am na yu nga xamante ni àq la mhm. nit ku toog jàpp njàmbur ngay yabal ay xale yu ndaw ñiy fëgg ah loolu àq la àq la nan ay casserole yooyu àq la nañu respecté président Macky Sall président jàmm rek lay woote te baal ma ma daaneel ci tabaski bi rek ñi nga xamante ne bii dañ ci nekk te wax dëgg yàllam tabaski yàlla mun ne laa yukallifu laahu nafsan illaa yàlla tegul kenn mu attul am na ñoo xam ne dañuy dañuy nekk ay locataire du loué alors dem di ko jëndee xar di naan ah di wax ki nga xam ne mooy borom kër di naan ko ba ah mu ne xaar ba tabaski passé dama koy dama koy tabaski mais mais amuloo tabaski yàpp nga am la la may farata de wax dëgg yàlla euh, mm. yàpp yàpp nga yàlla tegul kenn du mënul muy dem màkk dem dem lépp te en tout cas daal nañu xam ne Marème Faye Sall première dame mi ngi dimbale nit ñi moom lépp lu mu waxante dina ko def jërëjëf jërëjëf euh, Abdou Thiam bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. waa kay maa ngi ziar sëriñ bi. jërëjëf yaay booy bisimilah. waaw yàgg naa si serveur bi waaye nag ñu leen di jaajëfal. jërëjëf jërëjëf ndax soxla nit ñi ñoo bari. jërëjëf fay woote yaay booy mhm. waaw maa ngi dëkk SN HLM bu Thiès. Mhm. nekk victime. Mhm. am na sax ku fi wootee sànq bu yàgg nag. moom kay dañuy woote rek. waaw boobu ba tey.

yàlla xam na ne yéen feeñ waaye ñu bëri nga souffrir instant bii nii yàlla wallahi lazim ñu bëri nga souffrir am na ñoo xam ne perdu am na ñoo ngi toog depuis des années di xaar yu bëree bëri wallahi lazim yi xoolal ñun benn parcelle nga fay ko ñaari yoon mhm. benn parcelle mhm. nga fay ko ñaari yoon wallahi ñu naan directeur bi fi nekkoon moo ko lekk mais directeur bi fekk ñu ko si mbedd mhm. bureau SN HLM lañ ko fekk et eh, defe naa l' administration c' est une continuité. Mhm. ñoom dañ ñu war a jox suñu parcelles yi. nii mhm. dee nañu bàyyi fi ay njëriñ. xale yu ndaw ñun bu ñuy euh, def sitting wala ñuy def marché sax mhm. da ngay gis xale douze ans yi mineur yi nga xam ne war ñu leen si dugal. ñoo ñëw di réclamer seen avoir yaay wala seen avoir. àq la daal ñoo fi ñu dimbali àq la. àq la saa ñoo déglu lii. daa mu dimbali ñu ngir yàlla ndax àq bi bari na si dëkk bi. ñun nag ñun suñu bos la ñu xam mm. nañuy dimbali ngir yàlla sonn nañu. Mm-hmm. ay ñëw ju doole lañu nawet bee ngi ñëw. Mm-hmm. ñii seen fa ñu luyee di seen ñii ñu war leen a génne. Mm-hmm. te yow nga am sa alal versé ko. ñàkk ko versé ko teg ko am na ci koo xam ne moom mu mu may dégg bu baax a baax. nan na ko leer maa ngi ci ay tànkam moom xam na ma bu baax a baax jërëjëf yaay booy. jërëjëf mu ngook yëf yaa ngi noonu doy na waar trop wàllu suuf ci bi mu réew na ci président wax ñi ci war a addu ci nit ñaa ngay ñàkk seeni xaalis ci ay ay millions yu bari ñu leen di nax bu caagin ne dañoo sàggan waaye léeg-léeg aussi dafa am fu ñay jaare rek ba ne la népp lekk sa xaalis ay at nga toog di xaar ñii ñàkk ay 15 million ñii ay 8 ñii ay diis lu doy waar la Abdou Thiam ñu jëlaat kenn bu dee am na kenn ku nekk ci ligne bi. oui asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa baax. sëriñ Mor Ñaa bu Mbacke Baar la de. ana waa Mbacke Baar ñu ngi si jàmm. waaye waa Mbacke Baar ak waa commune rurale bu Thiamène may ma yëpp ñu lay nuyu. ma leen ziar bu baax a baax. gis nga sama li ma logoon da ko loggati. Mhm. sëriñ Mor Ba ana administration bi. billaahi. xoolal ñii ba Ndiolaye Kaas rajo yi nekk ñu nga fudd ko boobu ba léegi ana ana médiateur bi daal bi nga xam ne ñu ngi doon fay yomb dee. Ah, hmm, doy na war mais sama sëriñ nañ waxante suñu xalaat taala président Macky Sall wax naa ci rajo ba tari am ñoo xam ne hmm. depuis PS ba léegi dañuy transhumé ñëw di ko naaxal. Hmm. billaahi wallaahi taalaay Macky Sall ay transhumé ñoo koy naax fi mu toll nii. Hmm. Seydou Nourou Ba xoolal ñëwee boobu ba léegi ñu ngi kàkkaw bi yëpp dugg nañ fa. Hmm. administration bi. kenn du wax. waaw da suba lay taalaat xoolal ñuy cotisé seen xaalis cotisation habitant ba tey doom mag. nañ di ko wax waa waa SN HLM nañ di ko wax fii nañ di ko wax. ah. man nañ dugg fii wax kay. bu dee eh, ñuy dégg nañ dugg ah, wax ah, ah, ah Seydou Nourou. waaw dugg dafa egg téléphone dañuy dugg bay a dee. néew bi ñu mën a egg. nañ dugg ñu bu baax baax nañ dugg wax leeral yi fii. seen correspondant bu nekk Thiès mu dimbali leen li laa war a solo beneen ci des. Mhm. waaw député yi législative yi. Mhm. Eh, ñaari législative yi Seydou Nourou. Mhm. nañ la xam si dëgg député yii passé. bon gis nga ay faux billets ñeneen ñi ñoo jënd tamit également euh, ay fo passeport yi ñu leen defar. yaa ngi def bilan yi passé ni ñaari législative yi. yaa ngi def bilan ñu ñaari législative yi moom doxul. Hmm. beneen bi fii ci Louga Seydou Nourou Ba doon coupure courant moo ñu bëgg a hmm. waxuma la affaire këyit la gi ma ko lii déedéet coupure courant yoo xam nii man mosuma ko gis coupure yi toog juróomi waxtu. waaw ah, loolu bëri na. Louga bii nii. bëri na comme gars yi bi Thiamène Mbaye mu ngi béy si Adrien dimanche passé woon naa ko ne ko wax sa gars yi. ci hmm. doon wax suñuy toog ay Seydou Nourou Ba dañu am courant. Hmm. beneen bi Soubaa Mbacké gii wax naa ko fan ya passé deuxième auditeur bi léegi nee na. Hmm. ci boor jumaa ji. foofa ndox ma fa nekk hmm. jërëjëf jërëjëf. ñaata ma leen si waa weddi waaye boo demee ba ci kanam. jërëjëf <laughs> waa ji Bari Abdou Thiam ñu jaal keneen wala ñu yemale ko foofu 9h euh, euh, teg na ñaar fukki simili du yàgg incha allah oustaz ñibbisi na <laughs> nga ne oustaz da nga leer de xanaa da nga ñetteel <laughs> wala ñeenteel <laughs> tafaddal mashkura salaamaaleykum